justice Sénégal dafa dafa dafa yàgg raté les rendez-vous. Mm-hmm. loolu depuis l'indépendance la da am Mamadou Dia affaire maître Babacar Sèye tout dafa yàgg raté rendez-vous et puis du seen ñàkk compétence parfois aussi il faut reconnaître aussi politique bi dafa am benn en mm-hmm. bu xaw a am doole. sur sur la justice du d'où l'importance aussi ñu war a accentuer léegi maa ngi doon wax bi may bi may nuyoo équilibre parce que àdduna loo gis équilibre la. Mm-hmm. xam nga tey say beaucoup de gens parlent de pouvoir judiciaire soo demee jaana dëkk yi nga xam ne ils parlent de l'autorité judiciaire parce que dañuy jàpp pour avoir un pouvoir ce pouvoir doit être tiré d'un suffrage universel mmh. mais Sénégal on n'élit pas des juges mhm. donc problème boobu aussi day am on peut parler voilà mhm. donc on peut parler d'autorité judiciaire ok mën nañu am autorité mais par exemple soo jëlee le cas des États-Unis États-Unis foofu on peut parler de pouvoir judiciaire parce que le procureur sont nommés. Mhm. da ngay dem élection ñu fal la nga nekk procureur. mais au Sénégal par exemple les les les les les tous les magistrats sont nommés par le président de la République. même aux États-Unis même ki jiite Cour suprême. oui le président. da koy tànn mais congrès bi ont leur mot à dire. les députés ak les parlementaires c'est-à-dire que foofu la la la Cour suprême des États-Unis mhm. foofu président de la république dootoo am si yow. benn benn mm. pouvoir tu n'as pas d'inquiétude à te faire en fait. non tu n'as pas mm. sa liggéey moo tax foofu. on peut dire que effectivement il existe une véritable pouvoir judiciaire mais mais Charles de Gaulle n'a jamais accepté l'idée d'un pouvoir judiciaire moom soo ko waxee dama ne pouvoir judiciaire du pouvoir c'est une autorité. Mm-hmm. parce que le pouvoir judiciaire émane du président de la République. Mm-hmm. le président moom mooy nommé aux emplois les postes. de magistrature que soit président Cour suprême président du mm-hmm. Conseil constitutionnel euh, procureur de la République le juge d'instruction tout ça donc yooyu aussi c'est des débats dañ ko war a poser ak li ci mënti am dans l'un ou dans l'autre c'est un système yi nga mais kam da koy amale ba mu am benn équilibre équilibre ma nga xam ne c'est-à-dire que autorité dina am xam nga débat boobu ça a toujours été l'autorité et et et la liberté individuelle. loolu ça veut autorité bi su ëppee. su ëppee foofu laay autorité su ëppee su su ëppee autorité su ëppee day day mettre en mal la liberté individuelle mais liberté individuelle aussi su ëppee. ça peut hmm. créer une déstabilisation. c'est xam nga cest suñu nekk dëkk ba xam lu waay neex def lu waay neex wax te dara lu si fekk si anarchie nañ jëm. Hmm. il faut que nag mu am benn autorité bu ñëw nag réguler affaire yi léegi su ko defee moo am équilibre. benn du ëpp moromam. mais nag c'est un débat très sensible. te c'est un débat ma xam ne effectivement man gëm naa ne Sénégal am na ay borom xam-xam yu fi nekk. yoo xam ne wax dëgg yàlla seen xam-xam kenn nat comme ni nga ko waxee léegi suñu magistrats yi c'est même soo demee cour internationale de droits de l'homme soo demee euh, cour de la haie soo demee tribunal du Rwanda partout y a des magistrats sénégalais. c'est vrai partout des magistrats. et les avocats mm-hmm. aussi macha allah les greffiers saalika noonu. Mm-hmm. donc euh, sur le plan des ressources humaines côté ba wax dëgg yàlla jooy ñu si dara. mais problème bi damay jàpp ni la volonté politique yu ñu manqué man gëm naa ni volonté politique alhamdulilah am nañ ko. te wax dëgg yàlla lii sama naatoo ngay wax léegi le président la en lançant ses travaux wane na sa volonté quand wax dëgg la jël affaire yi changé ko ba Sénégal yëpp gis boppam effectivement léegi wax euh, euh, sama naan léegi mi ngi wax ni tribunal da nga fay dem wax na dëgg il faut que ñu xam ni aussi on est dans un pays sous-développé te justice aussi dafa laaj des moyens mhm. justice dafa laaj des moyens les juges voilà attente beeg demande wax dëgg juge doyuñu da ngay da ngay dem si àll bi par mhm. exemple nga dem par exemple benn département le département tribunal d'instance moo fa nekk mais benn juge mooy jël rôle rôle rôle rôle juge day àtte di jouer rôle procureur di jouer rôle juge d'instruction. Mhm. mais loolu en réalité du wax ni c'est faute des pouvoirs publics wala dégg question de moyen la aussi. parce que juge parce que juge parce que juge aussi c'est un fonctionnaire spécial. Mhm. traitement salarial am li koy fay ak entretien bu mu laaj est-ce que suñu budget attan na loolu. Mm, c'est ça le problème loolu aussi. parce que le débat aussi du ay débat technique rek mais aussi c'est un débat économique. c'est vrai c'est un débat économique euh, un avocat soo ko jëlee yóbbu ko région bi est que foofu dina am ay dossiers ko mën a mën euh, maintenir. Mm-hmm. il faut que di xam c'est genre de débat là. parce que pour man dama jàpp ni ci kaw la gis rek mais ci suuf lay. fi voilà am affaire a régler. Mm. te ces préalables là dama jàpp ni suñ ko régler daañu am kii te jë. gëm naa ne aussi bon le président de la République est dans cette logique là pour vraiment régler de façon satisfaisante à toutes les parties ces ces ces ces questions te problème yooyu man gëm naa ni président de la République Sénégal yëpp dañ ko war a gën a jàppale mm-hmm. mu aller dans ce sens pour trouver vraiment des solutions idoines pour l'intérêt de tous les